koo xam ne dees koo wara gëtën ay gëtën war ko rey boole ca mel ne mu njaaloo te fekk sëngi wut naan sàngara sàcc ba noppi nag rey ab julit te tey ko nga xam ne kon njaaloo ga am na gëtën naan ga sàngara am na gëtën sàcc ga am na gëtën rey ab julit te tey ko nag ñu war ko caa rey kon nee na buñ ko reyee rek mu doy dañ koy rey te bañ koo gétan gétan yooyee lu may nag am kum yàq ab deram ci ne ko njaaloo nga te loola saxut kon kat faaw dañ koy caw ngir setal derub kooka ba noppi door koo rey nag rey ga ca war wa man shariba ku naan xamran sàngara aw nabisan wala am xonj muskiran mu di aji màndal xodda kon géttaneef ko tamaanina juróom-ñetti fukki yar sakkira moo xam màndina aw lam yaskar wala màndiwut ñoom sàngara booba dañ ko daan liggéeyee ci reseñ bu tooy lañu tuddee xamru dañ ko daan defare ci reseñ bu tooy ba mujj di sigreloo di maareloo maari gu ëpp di màndal xonj nag moom mi nabi san ji wax tax mboole ci muskiran mooy bu ñu jëlee tàndarma xooj ko wala reseñ ji wow nga xam ne tooyut loolu buñ ko xonjee buñ ko njambaane loolu moo tudd nabiis bu demee bay màndal nag kon dal nay soppiku sàngara na ko Tirmisi yu nettalee rek ci addis ba ne lépp luy màndal rek lu néew laag lu bari laa ci yam lu araam la doonte genn mucc la noona lañu koy jàppee nga xam ne ku naan loolee di màndal doonte sax naanu ca ba màndi du tee ñu gétan ko juróom ñett fukki yar ñoom nag ci seen atte yu jëkk yi dañ daan teqale lay màndal bu fekkee day ndox muy liquide lañuy wax ne sàngara la te boobu lañuy gétan ka ko naan mu des nag bu dee leneen loo xam ne mën naa màndal ni ki xeetu dorog yeeg yàmbaay yeeg yooyu ñoom dañuy wax ne dagam jëmm ju nekkul ndox muy sotti ku di yol jëmm ja laab na mën nga koo def ci sa poos julliwaale ko te it sañ nga caa jëfandikoo loo xam ne danga koy fajoo rek te du àgg ci soppi sam xel da ci araam daal ci ñoom mooy dem ba jëfandikoo ca luy soppi sam xel ndax kenn ku nekk sàmm am xelam ak yaramam waru gar la kon ñoom bu dee ci seen gis-gis doo ci sañ a jëfandikoo lu yàq si wéru yaram mbaa luy soppi sam xel waaye sañ nga caa faju sañ nga caa jëfandikoo loo xam ne dana la may cawarte te du tax mu wàññi la dara ci sa yaram mbaa ci sam xel bu dee nag gëstukat yi waa jamono ji ñoom dañuy gis yooyu ni mu tasaaroo ci adduna bi ak ni mu baree ak yàq ci waa jamono ji tax ñu koy araamal di ca teg sax ay tegandaay yu diis a diis wala si jina di tëj kaso xale yi di ko war ku naan sàngara dañ koy caw rek bàyyi ko waaye kenn du ko tëj kaso wayu jaradu def na futti almaxdoodu ka ñuy gétan ka ñuy gétan bu fekkee ne góor la dañ koy suñ ba mu des lu mën a sàng awraam lay sàng awraam moom kenn du ko ci futti waaye lu bokk te loolu dañ koy futti ndax yar yi metti wala tu jaradu deful futti almar atu jigéen illa mimma ndara ci la nga xam ne yaqihaa dana ko fegal ab darba dóor ga jigéen moom yaramam day awra dañ koy bàyyi mu sol ay yéreem ndegam yére du tee yar yaa metti waaye nag waaye nag bu dee yére yu dëll ba nga xam ne day tax yaree du metti kon daañu ko summi ba bàyyee ko ñu suturaal rek yaramam wa yu jula daani def na leen dóor ñoom ñaar xaaxi day ni mbir mu ñi aji toog maanaam képp ku ñi caw gétan dañ lay dij nga toog bëgg nañu sax ñu wut lu mel ne ab yaj def ca suuf tooyal ko ba noppi dij ko ca mu toog nga xam ne bu yàlla dogalee mu tuur ndox itam mu nekk sutura ñu jaawale kook ndox mi ñu sotti woon ca yej boobee ak ca suuf sax wala tuxaddu deful gétan xaamilun aji ëmb xataa tadan ba te muccee doom ja bu fekkee ne kañ war a gétan daa fekk mu ëmb dañ koy bàyyi ba mu am doom bu amee doom itam ñu bàyyi ba mu nàmpal ba noppi mbaa boog ñu am ku mën a yore doom ja di ko toppatoo su boobaa ñu door ko gétan waaye jamono yi ëmb ga kenn du ko ci gétan ndax kon bañ a reyaale bakkan muy lam ëmb wala maridun du caageenu aji tawat mu saqal nu ko di kuñ diisal tawat xataa yabra am ba te mu wéree kuñ war a gétan waaye daa fekk mu tawat tawat ju metti dañ koy bàyyi ba mu wér ndax dañuy bañ tawat ja tax buñ ko ci gétanee mu farfaatu wala yuqtalu deful rey waati ul bahimati aji laal bahima wal yu xaaqab na buggaleef ko mooy nañ ko yar rek ku fekk bahima mu joteeg moom jël ab sawukaayam def ca awray bahima ba def na lu ñaaw ñaaw dañ ko yar rek nag waaye kenn du ko jàppi njaaloo dëgg-dëgg ba gétan ku gétanu njaaloo wa man saraxa ku sàcc rubuha dinaarin kaaru dinaar zahaban ci wurus aw maa wala loo xam ne xiimatuhoo xaymaam yow ma sarixa ci bisub càcc ga talaasatu drahima ñett tërëm la minal xuróodi ci ay xeeti marchandise aw was na salaasatu drahima wala mandaxim ñett dërëm fiddatan ci xaalis utixa kon dogeef ko nee na koo xam ne sarte daje na ca ba noppi itam mu sàcc loo xam ne mat na nisaa bi sàcc kon dañ koy dagg daañu wax lan lañu dagg ci moom nisaa bi sàcc nag bu fekkee de ci wurus mooy kaaru diinaar kaaru diinaar war naa tolloog benn garaamu wurus bu tegal cent vingt cinq milligramme loolu mooy kaaru diinaar ñett dërëm ci xaalis wax nañ ba tàyyi benn dërëmu yoon muy ñetti ngaraam yi xaalis yoo xam day manqué vingt cinq milligramme boo dee seet lu mu war a toll ci xaalisu CFA du war a sori huit cent trente trois huit cent trente trois loolu kon mooy benn dërëmu yoon ci ni mu toll ci xaalisu CFA boo ko defee ba muy ñetti yoon nag mu jox la deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam deux mille cinq cent yu manqué benn fifteen kon mën ngaa jàpp ne deux mille cinq cent yu manqué benn fifteen moo tolloog ñetti dërëmi yoon ci xaalisu CFA bul fàtte nag ne ba tolloo ci wax can damaa faran def benn dërëmu yoon mu mat ñetti ngaraam loolu moo taxan la ma waxan ëppan lii waaye bu fekkee da ngaa def dërëmu yoon ñetti ngaraam yu manqué vingt cinq milligramme kon benn dërëmu yoon boo ko dee seet ci xaalisu CFA day tolloog huit cent trente trois muy benn dërëm huit cent trente trois nag boo ko defee ba muy ñetti yoon ndax nga am ñetti dërëmi yoon kon dalay jox deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf te loolu mooy juróomi téeméeri xaalisu CFA yu manqué benn fifteen kon mën ngaa jàppe loolu nisaa bi sàcc ci xaalis ci jamono ji nuy waxe fii mu nekk bu ko war a sori kon loolu mooy nisaa bi sàcc ci wur sa xaalis bu dee leneen lu bokk te wur sa xaalis nag dañ koy xayma ba xam ndax xayma ja mat na xayma yi ñetti dërëm yoonam déet su fekkee mat na xayma ñetti dërëm yoon loolee mu sàcc moo xam abajo la moo xam montre la moo xam leneen la rek su boobaa ñu war koo dagg ci sartub ida saraxa ndem sàcce na min hirsin ci ndàmb ndàmb nag mooy dencukaay bala ñoo dagg kenn ci sàcc mu sàcce ci dencukaay dencukaay nag leen lu nekk boo ko tegee fa nga xam ne ku ñëw di la wax ne la ah yow kat yaa wàcc sa yëf xamal ne kon denc nga ko waaye nag boo tegee sa yëf foo xam ne bu la nee foo ko tegoon nga ne fii ñu ne ah yow nag yaa wàcc sa yëf loolu moom ka sàcc kenn du ko dagg leen lu ne ak fa mu yelloo ñu denc ko fa ku ko fa denc rek denc nga ko ci dencukaay ku ko sàcc rek te mat ni saa bi sàcc ñu war koo dagg wala xaptan diiru dagg fil xulsati nekk ci fëkk ku jekki-jekki rek fëkk yëfi jaamu daal daw biñ la jàppee itam du tax ñu jàppe ko sàcc ba di la dagg dañuy jàpp ne fëkk bokkutu sàcc ndax sàcc moom mooy ki nga xam ne buy dugg day làqu bu dee génn di làqu fëkk nag moom danga ko séen bi daal di gaaw këf ko rek wéyeg moom wa yuq tax def na dagg fii daalika ci loolee yeddu rajuli loxal góor wal maraat ak jigéen wala xam di akub jaam ka sàcc nag moom muy góor muy jigéen muy gor muy jaam ñoo ci yemoo wares na koo dagg ndegam lam sàcc mat na ni saa bi sàcc te sàcc na ko ci ab dencukaay fuñ koy dagg nag mooy loxoom ndeyjoor ba dañuy njëkk a dagg te daggee ko ca tikku jara ba su ma in saraxa topp ma dem sàccaat na xottiaat kon dogeef rijuluhoo tànkam ba min xilaafin ci juyale bu sàccee sàcc ñaareel ñu dem ca tànkub càmmoñ ba dagg ko ci dajar ba su ma in saraxa topp ma dem sàccaat na fa yedduhoo loxoom ba ca des su ma in saraxa topp ma dem sàccaat na fa rijuluhoo tànkam ba ca des maanaam bu sàccee sàcc ñetteel dañuy dem ci loxob càmmoñ ba dagg ko ca tiku jara ba bu sàccee sàccu ñeenteel ñëw ca tànkub ndeyjoor ba dagg ko ca dojor ya su ma ñu saraxa topp dem sàccaat na jullit ak kon dóoreef ko war sujj na te tëjeef ko kaso su sàccee yeent weer nga xam ne amatul benn loxo amatul benn tànk waaye teewul mu fexe ba sàccaat su boobaa kon say boo ñu tëj ko kaso rek bàyyi ko ci kaso ba dañ koy bàyyi ci kaso ba benn mu tuub tuub gu sell mbaa mu dem ba faatu rek wa man aqarra ku saxal bi sarixatin ci càcc xutiha kon dogeef ko mu kàllaf mu ànd ak sagoom kenn forcé wu ko bu ne man maa sàcc ñu seet lam sàcc dagg war ca ñu daal koy dagg wa in rajaxa ndeem dellu na ni sàccu ma uqi la kon xàccaleef ko wa xarima waaye te mu fay as sarixata càcc ga in kaanat ndeem nekk na maa xoo di ànd ak moom wa illaa ndéem nekkut ak moom uttu bi xa kon toppeef ko bi xa ca moom mu kàllaf mi waxal ne maa sàcc bu wëlbatikoo ne sàccuma kat ah ndegam moo wax ne moo sàcc te weddi na ko dañ koy daal di bàyyi bañ koo dagg waaye na bañ kaa dagg téewut bu fekkee loolee mu ne woon moo ko sàcc ba tey borom gisu ko dañuy jàpp ne kon kat moom du set mel ne bu waxal ne man damaa sàcc bañ koy bëgg a dagg mu ne ah sàccuma kat taam alal juñ ma dénkan ma jël ko faj saa soxla ma defeen loolu càcc la loolu rek li moo tax ma ne sàcc naa de waaye sàcc ma loolu moom daa weddi càcc ga ba noppi am lu mu ko layee waaye nag bu weddi woon càcc ga mu wax te layewu ko dara du tee ñu bàyyi ko bañ koo dagg moom du tee nag alal ja moom ñu wax ko mu fexe ba jox alal ja boroom bu ko yoree jox ko ko bu ko yorul ñu topp ko bam jox ko ko waa man koo xam ne uxiisa jàppeef na ko fil xirsi ca ndàmb ga maanaam ca dencukaay ba lam yuqutan teef ko dagg xataa yuxurija mbati mu génnee assarixata càcc ga minal xirsi ca ndàmb ga muy ca dencukaay ba kuñ fekk muy sàcc ñu yuuxu ko rek mu daal fay bàyyi loola jotu koo génnee kon kenn du ko dagg maanaam bala ñu koo dagg mu génne càcc ga ca fañ ko dencoon waaye nag mu jotu koo génne foofu rek kenn du ko dagg wa kasaalika naka noonu alkafanu càngaay minal xabri ci bàmmeel ku doon gas bàmmeel di sàcc càngaayal néew ba biñ ko fekkee mu daw rek jot te génne càngaay la kenn du ko dagg waaye bu fekkee génne na càngaay la nag ca bàmmeel ba kon génne na càngaay la ca bàmmeel ba loolu kon dañuy jàpp ne génne na la mu doon sàcc ca dencukaay ba kon des na ko dagg wa man saraxa koo xam ne sàcc na min baytin ci ab néeg udina boobu digaleef na dafa ñeel ko fii du xooli yi ci tàbbeem lam yokk tax dee fu ko dokk koo xam ne daal laata muy dugg ci néeg bi yëglu na moo xam daa fëgg moo xam daa nuyoo ñu ne ko bismillah jàll seen ba mu jàll seen nag mu am lu mu fa sàcc ko kenn du ko dagg wax dañuy jàpp ne dafa wor muy yëglu woon na ba ñu ko ne jàllisil ba ñu wóolu ko moom nag daa wor rek sàcc fa sàcc daal moom jàppal ne mooy ki nga xam ne buy dugg day làqu bu dee génn day làqu waaye kii moom yëglu woon na ba ñu ko ne jàllisil ba mu ñëwee nag la fa yóbbaale yëfi jàmbur yooyee kooka des na ko topp rek mu fa yëfi jàmbur ya waaye kenn du ko dagg ca loola wala yoqutaxma deful dagg al muxtalis aji fëkk loolu baamu la wax na léegi wala xattan fir xul sëti jekki-jekki rek siif yëfi jàmbur daal daw ku ko defee duñ la dagg li topp rek pexe jot ci alal ji waaye kenn du la dagg wa iqraarul xabdi saxaluk jàmba fii maa ci la nga xam ne yàlla sa muxu dana ko war fii badanihi ci yaramam min xaddin ci gétan aw xap aw xapa in wala dagg yàlla sa muxu dana ko war jamono yooyu jaam daa am mu ne jaam na bu waxalee boppam ne man day nangam maa ko def ñu seet ko géttan war ca ni ki mu ne moom day dafa njaaloo wax ko ci tey ba kanam mbaa mu ne moom daa naan sàngara mbaa mu ne daa sàcc yooyu yëpp géttan da ca am ko waxalee boppam moo gor si waxal ko boppam yooyu moom dañ koy topp def ko loola wamaa loo xam ne nag kaana nekk na fi raqabati yi ca baatam ba fara iqraara déetug saxal loxoo di ko ñeel su waxee loo xam ne ku ko topp nag mu bàyyi ko ci boromam bi dem ci keneen nag ni ki am na kuñ dagg loxoom xamuñu kum doon mu ne man mi maa dagg loxoom loolu duñ ko nangu ndax dañuy jàpp ne boo demee daa bëgg ñu jël ko fayee ko kooke ñu dagg loxoom rek mu daal di am beneen borom tàggoog boromam bi loolu moo tax moom bu amee seere yu ko saxal ñu gëm ne moo ko def waaye waxi boppam rek ne maa ko def moom dis ko nangu wala xatan déetu dog fii samarin ci am meññet mu xàllaqin mu di muñ aj ca kaw garab ya garab ya ci àll ba meññ waaye ci tool ya ci àll ba rek la amul kaaraange amul dara kenn sàkkul meññeen ma ba mu wàcc fi suuf ma nga ci kaw garab ya ku fekk sàcc rek kenn du la dagg da bu fekkoon day meññeen mi ci kër gi waaw ku ko sàcc ci biir kër gi moom ci garab ya kër gi kaaraangeem la ba tey des na ko dagg moom wala fil jummaari du caagéew ni ci xolu tàndarma ya fi naxli ci tàndarma ya tàndarma day am lu ñu tuddee xolu tàndarma loolu nag ku ko sàcc ci garabug tàndarma ga rek dindee ko ca noonu du tax kenn dagg la ndax lu jàppuñ ko ab dencukaay wala fil xanami du caagéew ni ci gàtt ya arraaxiyat yi e aji wët mooy aji for yi xataa tusraxa mbate defi sàcc leen min muraajiha ci seen yendukaay gàtt yi wëtt ci àll ba di for rek noonu moo xam ànd nañook sàmm moo xam ànduñook sàmm ku leen sàcc noonu fekk ñu tasaaroo rek di for ku fexe ba sàcc ca kenn du la dagg waaye nag buñ bàyyeekoo fa ñuy fore dem tëdd fa ñuy yendu ku leen fa sàccee ñu daal lay dagg ba tey buñ leen jiitalee ñu dem di wëtti noonu nga xam ne jotuguñoo tasaaroo ñu leen jiital noonu rek ñu aw ci yoon yi dem ba tey ku ci sàcc ñu dagg la wa kasaalika naka noonu attam du tàndarma minal andari ca bojjukaay ba wala ci weerukaay ba tàndarma dara am dàgg ni nga ko gise fii ci dugub muy am dàgg noonu la tàndarma mel ca fañ koy liggéeyee fañ koy bayee ku sàcc nag tàndarma ca fañ koy weer muy dàgg ja ñu dagg ko ndax foofu dañuy jàpp ne ab dencukaayam la dañu ne kon suuna ak saaño ñu ngi koy wutale dàgg ku ko sàcc maanaam fa ñu def dàgg di fa def sàq yaag yooyu ba tey mel na ne ñu war ko dagg wala yush fa mu deful tin li man ñel ka nga xam ne balaxa jot na alimaam ilimaan ba fi sërxët ci sàcc wala si na ak njaaloo koo xam nag moom daa sàcc mbaa mu njaaloo bu xasee àgg ca ilimaan ji faaw mu def ci la yàlla wax kenn du ko mën a tin de moom sax bu defee jëf ci ñaaw jooju muy njaaloo te kenn yëgu ko la gën mooy mu sutura mu suturaal boppam rek te tuub digganteem boromam bañ koo wax bañ koo feeñal waaye nag bu xasee àgg ci àttakat ba moom faaw rek mu war koo def la ca yoon wax sàcc it buñ sàccee sa yëf mën ngaa suturaal kooka bañ ko yóbbu ci yoon daal koy jégal rek noonu waaye nag bu xasee yóbbu ba ci àttakat ba moom jégal ga wees na ci faaw rek buñ ko waree dagg moom dana ko dagg ndax loola àq yàlla da caa daal di aju fa saasa bu mu xasee àgg si ci moom waxtu li fa wuuteef na fii daalika ci loolee fil xas fi ci xaste fi ñu wuutee nag mooy buñ ko waxalee dox tànk caaxaan te mooy njaaloo mu naqari ko nag ndax bu xasee àgg ci àttekat ba dana ko mën a baal ndax moom biñ ko dee caw faaw ñu laaj ba xam waaw kooku lu mu def di ko caw waay ñu ne ah moom kat jiw la waxal nangam ak nangam su boobaa kon moom ab dërëm day gën a yàqu ndax bañ ab dërëm gën a yàqu ndax sañ na kon bu àggee ci ilimaan bi itam mu ne rek man baal naa ko ndax ñu tàyyi koo caw ab dërëm di ca gën a siiw wala sañu ko bu xasee àgg ci àttekat ba faaw rek moom ñu caw ko foofu am na wuute wa man saraxa ku sàcc minal kummi ci lafu mbubu xutixa kon dogeef ko maanaam ku sàcc ci poosum nit wala ci kaalaam mbaa lafu mbubum dañuy jàpp ne loolu ab dencukaay la faaw rek ñu dagg ko ndax nit moom lafu mbubum mbaa poosam mbaa sentiiram yooyu yëpp daal moom ab dencukaay la ku ci sàcc rek te mat ni saa bi sàcc ñu dagg ko wa man saraxa ku sàcc mi leen xur yi ci ndaagaan ndaagaan ab magasin la boo xam ne yooyu jamono ilimaan jullit ñi da cay denc ñam waag xeeti bagage yi nga xam ne jullit ñee ko moom wa baytilmaal ak baytimaal baytimaal nag moom mooy kees ga muy def wurus ak xaalis loolu moo ko wutaleeg ndaagaan ndaagaan dañ cey def moom ñam ak bagage yooyu wal max na mi akum màng fal yuq tax na daggeef ko ab jullit bu sàccee ci alali baytimaal mbaa mu sàcc ci magasin bi jullit ñëpp bokk moom mbaa alal jën jële ci xare ba ci yéefar ya mu sàcc ca day mel ne kon boo ko dee seet am na ca àq lam sàcc bu matee ñu saa bi sàcc ñu daal koy dagg duñ seet ne am na ci wàll mbaa dara dañuy seet rek lam ca sàcc su matee ni saa bi sàcc rek ñu dagg ko wax yi la waxees na ne in saraqa ndem sàcc na foofu ko xaq yi ci kaw àqam minal maa xam ne mi ca màng ga bi salaasa drahima ci ñett dërëm xuti xa kon dogeef ko alal li màng ga mooy lañ jële ci yéefar yi ci alal te fekk moom mu am ci àq moom lañ ñenn ñu ne dañuy seet wàllam bu génne ba noppi la def ca càcc ga ndax dana mat ñi saa bi càccam déet su ko matee ñu dagg ko su ko matut dee su ko dagg wax ji gën a wër nag mooy loolu dee su ko seet moo baytimaal ak ndaagaan gee ñooye moo lu mu ca sàcc rek bu ma tee nisaa bi sàcc ñu dagg ko duñ ca seet am ngam ci am àq mbaa dara wayu tabaxu def na topp as saarixu aji sàcc ja isaa xuti xandem dogeef na ko fi xiimatimaay ci xaymay la nga xam ne faata raw na mina sarixati càcc ga fi malaayihi ci woomalam ku sàcc nag buñ ko toppee ba dagg ko fekk yoriwut lam sàccoon tam du tee ñu topp ko ko ndegam koo topp mën a fay maanaam ndegam ku woomal la maanaam ku man boppam la lam sàccoon yoru ko waaye mën na koo fay kon dagg gañ ko dagg du tee mu war a fay boroom alal ja ndax dagg ñu ko dagg moom day tax rek moroom bañ a def lim def di sàcc waaye tekkiwul ne buñ ko daggee mu daal di moom alali jaambur joojee déedéet su ko yoree moom da koy joxe fa saasa fekk yorewu ko itam waaye ku man boppam la ñu topp ko mu fay ko wala yu tabaxu defu ko topp fii xudum yi ci ñàkkam nga bu fekkee xasuñ ko dagg nag moom te muy ku néew doole fay alal ji yomb ko dañ koy far bàyyi rek benn yoon ndax buñ koy teg yaari musiba dagg ko ba noppi di ko topp bor moom di ko topp alal day metti kon nag fekkee dagg nañ ko te it am alal ja ba delloo ko boroom du ko yomb ñu far ko bàyyi rek wayu tabaxu def na ko topp fii xudum yi ci ñàkkam nga bi maa ci la nga xam ne laa yuqtaxu defu ko dog fii ci moom mina sarixat ci càcc ga bu dee càcc goo xam dagg da caa warul nag moom ni ki lam sàcc daa matul ni saa bi sàcc mbaa da ko sàcciwul ci ab dencukaay xam ne ko wësu ko caa dagg loola moom faaw ñu topp ko rek mu fay boroom moom lu mu ñàkk-ñàkk du tee ñu topp ko ne ko fayal rek boroom saa yu ko amee rek war koo fay baabun li ab bunt la fil aqdiyati ci àtte ya wa shahaadaati ak seere ya te ñëw ci mbirum àtte ak ni nga xam ne moom la ca seere amee solo bu dee ci ñu lislaam di àtte wal bayinatu seere xalal muddahi war na aji woote ja aji woote ja mooy aji kalaame ja ka nga xam ne moo kalaame dañ koy wax ne ko ana say seere fekkee taxawal ne seere yi mat daal koy jox dëgg àtteel ko wal yaminu ngiñ xalaaman war na ka nga xam ne ankara weddi na kañu kalaame nag jiiñ ko tam weddi miim ki wax ne ko yow waatal bu fekkee ne daal ka kalaame amul ay seere dañuy wax kañu kalaame mooy kañ jiiñ ne ko yow waatal miim lim la kalaame dem soo yoon nga xam ne kon ki nga xam ne mooy kalaame war naa andi seere yu mat ñu àtteel ko mënta am ay seere nag ñu wax kam kalaame ne ko yow waatal miim lim la kalaame te dem soo yoon wala yamina te déet ngiñ di war xataa tasbuta mbate saxee alxultatu jaxasooga awi zinnatu wala tuuma ja kazalika naka noonu xazaala attee xokkaamu ahlil madinati atekat ñuñ madina xam nga boo seetloo lim ne wal yaminu xalaaman ankara day wane ne kañu kalaame muy weddi faw war naa waat miim ñu ne nag wax ji gën a wóor mooy bala koo waata war te fekk moo ka ko kalaame ñu amanu jaxasoo goo xam ne loolee mu koy kalaame mën naa xew seen diggante wala boog tuuma taq ko ca ñu mën ko caa tuumaal waaye ndegam moom gis ñu luñ koy tuumaale ci xamuñu genn jaxasoo gu mas a jaxasoo kookee koy kalaame loola kon waat ngir miim waru ko caa fekk dañ ko war a bàyyi rek mu dem mu ne kon waa Madina moom noonu lañ daan doxale daa am ñoo xam ne ñoom dañuy wax ne ndegam ki kalaame amul ay seere kañu jiiñ moom tamuy weddi faaw rek nawaat balaa dem moo xam xamoon nañ jaxasoo seen diggante wala ndax tuuma taq na ko ci mbaadeet moom daal faaw rek ndegam kii amul ci seere moom nawaat miim door a dem waaye waa Madina moom dañuy wax ne loolu duñ ko defee da nga gis ku yàpp nit ñeme yàlla rek daal jekki-jekki daal koy jiiñ kalaame ko andi ko ne kii dama seq ak moom nangam ak nangam kon nag faaw rek na ak jaxasoo aman seen diggante ba tuuma mën caa taq kooka mooy tax kii ko kalaame bu amul ay seere ñu wax ko moom miñ kalaame ne ko waatal miim door a dem waaye bu fekkee jaxasoo amu ca tuuma amu ca day jekki-jekki rek dem kenn du ko ca waatloo waqad xaala wax na Omar ibnu Abdul Aziz Omar ibnu Abdul Aziz ne taxdusu dana sosu li naas ñel nit ñi aqdiyatun ay atte te xadrimaa ci kem la nga xam ne ahdasoo sos nañ ko minal fujoori ci xeetu caay-caay li mu ne waa Madina ñoom maasile wuñu wal yaminu xalaaman ankara nga xam ne kañu kalaame ndegam ka ko kalaame amuti seere bala ñu ko waatloo day fekk rek ñu xam ak jaxasoo gu wér amoon seen diggante mbaa tuuma taq ko ca waaye bu loolu amut day jekki-jekki dem moom miñ kalaame du aajo wu muy waat nee na loolu kat wax yi Omar ibnu Abdul Aziz mu baax mii dëgëral na ko ndax moom dane nit ñi kem ni seeni caayu-caay di toll ak seeni pexe yu bari rek nañu leen tëralal ay atte yoo xam ne dana dëppoonteeg alquran ak addis te it dana yell ca caay-caay yaag pexe yu bari ya waaye nag sunu jamono ji moom daa wuuteeg ñoom seeni jamono nga xam nga mel na ne bu kenn kalaamee moroom ma wax ni siq na maag moom nangam rek saye boo yoon seet ko ba xam loolee nu mu demee te bañ na rek ñoom xamuñ ci ñoom benn jaxasoo ba kii daal xamuñ ci moom benn tuuma déedéet say boo ñu seet ko moo gën a wóor mel ne ndax xam nga bu dee dëkk bi mu dëkk rek bis bu ne gaaw bi mbooloo tas fi moo xam ne ñu ci bari bari keroog lañ masa gisante te it mën nañoo jëflante am lente ca am lente yoo xam ne faaw mu aajowoo ñu teqale leen ci yoon lu mel noonu nag kon say boo rek ka nga xam ne moo kalaame bu amuti seere itam kañu kalaame balaa dem na waat rek miim moo gën a wóor buñ seet rek ne xamuñu seen diggante genn jaxasoo mbaa xamuñu seen tuuma ju ciy taq waa ji ñu kalaame wa isa naka la ndeem ñeññi na mooy nem ragal naa waat al muddaxa kañu jiiñ xale yi ci moom lam yuqda deful atteel li taalibi ñel aji jiiñ taate ja mooy aji sàkku ja xataa yax lifa mbate mu waatee fii maa ci la nga xam ne yaddaa yi dana woote fii ci moom maarifatan ak xam ki kalaame bu amul ay seere kamu kalaame moo war a waat rek miim dem aw yoonam kooka nag bu ragalee waat day mel ne kon ki kalaame dal nay am dëgg waaye nag su fekkee da ko kalaame woon kalaame dëgg-dëgg mooy ne ko yow a yow a yow a dogu ca moom bu kooka ragalee waat it dañ koy wax ne ko yow mi ko kalaame waatal dëgërale ko sa kalaame bi ndax mel na ne jege nga am dëgg bu doon kalaame boo xam ne nag duggu ca ne ko yow a dane ko yow laa wóoloo diku rek kooku moom su kooka ragalee waat miim dañ koy wax ne ko yow mi kalaame dal ngay am dëgg rek